dal leen ak jàmm ci ajonews point info ñu indi leen la gën a fas yi doon wax ni seen client mosul taxawal benn société jombe nañu démb le quotidien ni notaire bii di Patricia Ley Diop mooy feeñal mbir ya nee na doomu Abdoulaye Wade ji sant na ko mu sos lu toll ci juróom-ñetti société waaye Karim mosul feeñ ca kayit ya ay ñooñam la moomale société yooyu loolu tax na Patricia Ley Diop mënul firnde ni Karim moo leen moom lu populaire di indiwaat la Walfadjri moom di xam ne ci wàllu atteb Karim bi ba tey ni justice bu Sénégal lank na bañ a ranal atte bi ndax li fi Bibo Bourgi nekkul keneen képp attem di woy moo di Aïda Diong la tribune ay bis gii la yëf yi di leer képp ku laaleeg lu jëm ci procès bi dinañu la woo nga jàkkaarloog attekat yi lépp ngir mën a xam ndax ndaw si Diong day tëdd kaso wala day génn Macky moom li ko soxal mooy ak faloom ci élection présidentielle yi ñu jëm la tribune Ebola le ni kuréel gi yor wàll wérgu yaram ci àdduna bi di OMS génne na Sénégal ci réew yu amee Ebola ñaari réew yi di Espagne ak États-Unis fekk si nañ Libéria Guinée Sierra Leone ak Nigéria ci réew yu dese jàngoro boobu kër gi Awa Maricol Seck jiite gannaaw ba daanee Ebola ba noppi war jóg ci jalgatikat yi nekk ci biiram ubbi l'observateur yëglekaay bi di xam ni kenn ko fa doon liggéey moo fa doon jalgati xaalis réew mi waa dikk dugg a gaañu ci bopp la am ci wàllu tàggat yaram gaynde Sénégal yi ñoo ngay waajal seen jongante ak waa Tunisie suba le populaire nee na waa Sénégal nee nañ cëpp démb ca Monastir waaye lii ñul yi sooy mooy ñi am ay gaañu-gaañu ci ñoom bare nañu lool Demba Ba ak Kara ñoom mu ba xam dinañ bokk ci jongante boobu ci moo gënoon a fas yéglekaay yi di jox dig daje suba incha